Tafatin lamb ji. Mhm. bu teeyee. Mhm. a génn sadaxaat bi mu ko wax. Mhm. ada ku li xali mooy daan Balla Gaye si jër bu dul wérante. allahu akbar. waaw te teey la teewu dina. ndax Balla Gaye dafa doon comme si lamb ji lépp danaka da kaa am wér si nit ki. dëgg la. ndax Balla Gaye boo xoolee am na yenn sërmo yu am na lu muy jëfandikoo lam si bu ko jëfandikoo. képp ku jàkkaarloo moom ay cëram da ngay bàyyi. mooy li muy am na lu muy diwoo kon ko leer na Moussa. waaw. am na diw yow bu lamb demee bay ko taxaw loom ci da koy bu ko diwoo képp ku day internet yi setan seen site internet ngoy ya, tv ah ñu ziar leen bëggewaat leen bu baax baax kenn ku nekk ñu lay fekk fa nga nekk rek di jox sa ñaari loxo di coob di jéglu bu baax a ci émission bi dem nañ ko def ak Serigne Soy bu mais la ko suñu borom dogal dem dañu nekkoon ci ay xat-xat ay jafe-jafe lool lool moo tax mais tey reprendre nañ émission bi ah ñu fas yéene waxtaani nag sëñ Poñ léegi léegi ak Serigne Souhaibou Diop nekk ba diwaanu Touba rawatina nag man li mu wax ci biir émission bi ne moom la bëgg a waxtaanee nekk na loo xamante ni lëmbe na àdduna wax dëgg fa la walum trahir surtout waa ji nga xam ne jël na soxnaam wala mu jë soxnaam jël jëkkëram. borom këram yóbbu ko bitim réew mu trahir ko lolou yëpp inshallah allahu rabbi dinañ ko waxtaane ak Serigne bu job dañuy joko ak mom rek mu nek bu diwanu Touba Mbacké ñu joko ak mom rek ci téléphone bi noyu ko mu noyu ak mbokk internet yi salaamaaleykum Serigne Sohibou maaleykum salaam wa rahmatulah Moussa Maram ñu ngi lay xiar bu baax yalla yàlla na siyaar alhamdulilah ñu ngi siyaare ko ku diglu hmm te doo baaxo dig suñu kàddu mhm. te jotoo hmm jaajëfal mboolem ku ñu dégg Moussa di nuyu waaji sawar waaji sawar bi di nuyu mboolem fu waaye nekk donte bitim rek wala di wax fa nga nekk di wax asalaamaaleykum di nuyu mboolem ñu ñu déglu daal ndax wax dafa jafe moom dëgg la te dunoo moo boo xawut daanaka seen wax dafa far di gàtt moo tax ndax wax ju bari daanaka dootul amati jëriñ dëgg la yaaram kon nag ñu ngi jaajëfal ñëpp ku ñuy déglu bisimilah Moussa jërëjëf suñ soy bu su fekkee da nga yor écouteur nga a wala nga gi rek ñuy di mën a bu baax numéro Moussa Mali dig tey voilà jërëjëf kon euh, fi ñu koy commencé rek sëñ Soyibou am na cinq euh, questions yoo xam ne moom bëgg ñu première première bi mën nañoo wax ci wilum set, dinañ ci waxtaan mhm. deuxième bi tam dinañ ci wax ci wàllum jafe-jafe manam ñi nga xam ne dañuy jël seeni soxna yóbbu bitim réew ñu trahir leen wala mhm. euh, ñu jël soxna yi tam jël seeni borom kër ñu trahir leen loolu itam ba léegi dinañ ko ah. Mhm. dinañu waxtaane itam Serigne bu Diop nekk bu diwaanu Touba la ñuy waxtaanal ci lu bëree bari daal xam naa incha allahu rabbi dinañ ci ñëw léegi léegi daal mais Serigne Soyibou fi ñuy commencé ak yow daal mooy wàllum bitim réew. wallum wàllum trahi na foofu bari na lool sax bari na lool bari na lool ñu baree bari dañuy jël seeni soxna yóbbu mais dañuy dem ba mhm. ci biir dootuñu am lu neex seen biir boo tagtoo sax di am seen diggante ku ne di dem non la hmm. noonu amu amé ci gor ñi non la amé ci jigen ñi wax deug fa ndax amna jigen yo xamne xam ne dañuy yóbbu seen borom kër mais dañuy dem ba ci bir ak jafe-jafe am seen diggante lool lan mo koy waral sëñ sooy bu lool nag ñaar lu si bëri ñin mhm. man ngeen man ngeen dem ba yegg ñaar ñak ga seet mo koy waral mhm. ndax bala nga ra yóbbu réew war nga seet ba mom bu ñëwee waaw rawxaanam nan lay manifester ci yow ndax rawxaan bi man nga pousse puus mhm. mu ne faral di jékki di mer dila la respect lu ne mu koy def ak yow ndax dafa doon moom si ñaare jigéen boo xasee ba dem réew mi rek dafa am dafa am pouvoir lool foofa loo ko laal lu mu tudd rek mën na laa tëj loolu nag ala kulli xarit képp koom si yaa ngi koy dund moo xam jigéen yaa koy dund moo xam góor gi yaa koy dund comme si mën a doon boo ma joxee tur kooku ak kooku tur tur kooku ak kii lay def loolu ak ku mën a doon mm-hmm. ma saafara jàngoro jooju mu gën a gaaw ma ko. macha allah nit day nekk ba réew ma mhm. nga woo ma ni ma sama doom ji dama bëgg nga feraral ma ko mhm. ba du soxlaatu ween wi mhm. kon asama waxuma laa kon loolu jëlee naa loolu waaye mën a nekk mën na war a saafara loolu ndax ñu si bëri dañ koy déglu bu du si bëri nag dañuy def ba mujj seen liggéey di yàqu jigéen dong moo ko yàq ñu si bëri nag day def ba u seen liggéey góor moo ko yàq ba duñ mën a liggéeyati loolu dafa bëri lool ñu koy dund koy dund waaye képp comme si yaa ngi dund loolu boo si boo si ñu si wooree daan la si taxu saa yi jef, jërëjëf loolu am na solo euh, sëriñ Soyibou euh, ñëwal itam ci mbirum seet ndax seet moom mooy lépp yaakaar naa nit ki mënoo dugg ci ay mbiram wala nga xam ay jafe-jafeem te seetaloo ko sëriñ Moussa man sama bopp mhm. wallahi sama ah, mhm. ak sama jëf. Mhm. képp la gisuma la. ma sama nga ko man ku ma seetal dama la gis wallahi na xasi ku ma si mën a seetal danaa la gis te lepp lu muy dugg lepp lu do aadama dama jàmbat bu ñëwee boo bañee boba ñewu ma wax ma feeñal seen bi rek bu ma seetloo man tax lo ma seetloo danaa ko hmm lo ma seetal lo passé ginaaw li yëtum sa kanam dana la wax hmm waaw bisimilah jërëjëf serigne Soy bu lolu amna solo ndax set moy buntu mu nit ki mënul dugg ci neeg ba ndax li arxuraan li arxuraan naan wa aatu bu yuutum bi nak wa leen len leen di koy seet ba pare dugg ci dugg deug la comme alxuraan moo tegtal loolu kon nag lu ñu seet dañ koy jaar sa buntu ba dugg ci woon dugg. dëgg la ndax kumpale si noonu ñaara nga dugg si mbir seetoo ko ay jafe-jafe rek la lay indi mhm. loolu nag boo ko seetee mooy waral nga war a xam fa nga mën a jaar moom ba saafara jàngor yooyu. dëgg la bisimilah Moussa. jërëjëf mooy li ma doon wax léegi rek néeg mënoo dugg ci biir te jaaroo ci buntu bi foofu jaar buntu bi mën a doog nga xam ne nekk ci biir néeg bi kon li sëriñ bi wax am na solo mais sëriñ bi dañu ñëw itam ci li nga xam ne suñu mbokku moodu moodu yi itam ndax da gis koo xam ne day tukki dem ba bitim réew moo xam muy itali wala Espagne wala France mu gis foofu benn tubaab boo xam ne daf ko bëgg a def soxna mais day xaw a jafe ci ñoom ndax ku bëgg ab tubaab bëgg noot lu ab tubaabam pour jàpp ko pour euh, def ko soxna loolu itam sëriñ bi am nga ci solution bu dee loolu moom wax dëgg yàlla bu ma kastoo biddiw tubaab ba xam heure bi mu daw. Mhm. ba xool ay mbiram ba xool ko ba pare. Mhm. ba xam seen burju dëppoo na. Mhm. ak seen rawaan dëppoo na heure bi ma ko def balaa heure bee jël balaa heure bee del si. mu am résultat. du nit ku ñun nit ku weex man automatiquement daanaka nopp moom no borom dama teel a tëjee loolu li ëpp li may liggéey bokk na si nopp. ñi ma ci contact woo na bari lool bari na lool. te wax dëgg yàlla képp ku ma jëf leen dugg jël li ngay réccu naan suñu bi yéex na maa ñëw si yow la la lay dig si yow yéex na maa ñëw si yow ndax fu ne dem naa fa mhm. damaa defoon man sax si bi ngay wax damaa defoon yow yaa ngi nit ñi yem ñëpp bokkuñ yem nit ñi buñ tëkkale ñëpp ñëpp bokkuñ yem xamaa na métti mi am ñu si nekk ñoom si ñu ngi si def tam mënuñu ko mhm. ñun nag suñu borom danañ see day def lay jege xusul sa dañ see def jegeel moo tax en général ku ma si def ku ma si def la muy def moo xam ne tur tubaab bi xam sa tur kii bëgg ko bu ma ko bu ma ko liyee pasto xam bidiwum xam rawaxanam xam ërëm kuma ma ko jaaree balaa heure ba dee ci ma jàpp la mi sakku lu yomb lay doon mhm. bu wol xey ba dig ma dig ñu ni tubaab dafa na jàpp japp mané da nga xamul fa ko wara a jaar rek waaye saa boo xam fa wara war japp jaar jàpp muy nit ku ñu nit ku wex kuma ci xam fa ma fa am sa video xam sa heure ëttu ko ni ma japp la mhm. waaw bismillah musa ndax japp doomu aadama suñ soy bu yom na nit ñi ngi am na ñu bari naan jafe na jëful xam nga doomu aadama suñu borom da ka boole matière yu bari la mi muy làmbool ndax doomu aadama fi bari bala nga mëna japp fo nga xam raw xaanam mhm. rawxaan bi nag boo ko nandalee ba génne ko ba génne kooku kooku wax mu génn sa daxar rawxaan bi mhm. kooku daanaka jàpp ko day yomb mhm. a nii waa na nga dem si benn sëriñ ma la kooku damay xam heure xam bidéo xam rawxaan mhm. daan koo dem danaan la nopp danaan la jox rek ma nopp nag demul noonu faaw nga bastu bi diom xam rawaanu ba pare nga tëggal ko xëyti mu salas xasaali boo ko tëggalee xëyti mu salas yi kooku nga jàpp ko day yomb waaw bisimilah bu nekkente ne suñu mbokku tubaab yi nekk nekk bitim réew mhm. yenn saa yi dañ ciy xam kenn mhm. ku jigéen ki wala ku góor ki ça dépend mais pour mu mhm. tubaab comme ni ko sëriñ yu bari di waxee mu ne il faut mu xam turam ak turu yaayam est-ce que dina jar tubaab bi ngay nooti itam nga xam turam ak turu yaayam man de bu ma xamee turu tubaab bi rek turu tubaab bu ma xamee. Mhm. ak bu ma xamee turam rek laa ak sant ak santam xam nga tubaab day am sant. waaw léegi bu ma xamee turam ba xam sa dost ba xam raw xanam. Mhm. heure bi mi manifesté si moom heure bi mi dugg si moom. Mhm. ba ma wax ne ko kooku sant liggéey boobu ma ne ko génne saraxu rawaan bi. kooku dama koy jàpp lu mu gën a gaaw donte dafa am intérêt sax si tubaab bi tubaab bu góor moom si dafa am moom mu bëgg si moom dara. bu ma ko defee la lu mu bëgg si moom da ko yomb. su ko defoon suñu ko jàpp ñaar loxoom lu mu ko wax da koy def wala su ko woon téléphone mu ko wax koy def te du ko sañ bañ. ay mhm. juróom yëpp koy bàyyee ko. dëgg la ma defee damay def ko waaw. macha allah lu am solo loo xam ne wax dëgg fa am na solo ci mim réew euh, siñ sooy euh, dem dëgg ma woo ne ma am na sa benn mbokku taalube boo doon waxal ba am lu bare bari loo xam ne bëggoon nga koo leeralaat euh, su ma juumul mën nga ci ñëwaat siñ sooy bu mhm. xam naa dafa am benn mbokkum taalube mu ma woo mhm. di waxtaan a man si mbirum Tapha Tine. waaw xam naa ni sax boo xoolee li wër te wër de. Mhm. lamb ji de barke Serigne Serigne bu ne nga wax waaye lamb ji man ba moo ko bastoo xam ne biddiwu Tapha Tine moo gën a génn ta Tapha Tine lamb ji. Mhm. bu teeyee. Mhm. ak génn sa daxaat bi nga wax. ada ku li mooy daan Balla Gaye si jël bu wérante. allahu akbar. waaw te teey la teewul dina ndax Balla dafa doon comme si lamb ji lépp danaka da kaa si nit ndax Balla boo xoolee am na yenn sërmo yu am na lu ko mhm. képp ku jàkkaarloo moom ay cëram da ngay bàyyi. mooy li muy diwoo. waaw am lu muy diwoo lam si xam nga kon nag ko leer na mu tax. waaw am na diw bu làmb demee ko taxaw loom si da koy diwoo bu ko diwoo. Mhm. képp ku jàkkaarloo moom say cër day bàyyeeko. li Balla Gaye dee di diwoo suuru lam ja bu ko diwoo képp ku jàkkaarloog moom ay cëram day bàyyi. day bàyyi ko te loolu nag nii war nañu ko xam. Mhm. te man lu ma xam la. dagg la. waaye li wërta wër képp koom si bëgg dafa tin waa kër dafa tin déggante na téléphone mhm. làmb ji moom adaa kulli xaalis si la jëm si mhm. tegtal laa wax ni daan ko ci jël bu rafet jël bu rafet mu ndax man xam naa ko bu baax xam naa fa may jaar ñoom ndax doomu aadama man dama di ko naan Moussa man dafa mhm. tin moom bu tiit si boppam ba jàppale dara dafa nekk si moom wala tiit si moom ba jàppale bala gere kaa njabar am na si yoom si man du du waxam du wax média sax xam na loolu si comme que ñu koy dikk naan di tekk ban ban seen borom dégg ban dëgg ndax kuy gas. Mhm. doo xam ku gas xam nga fa ngay gas. Mhm. kon baax na mos jërëjëf euh, Serigne Soy bu yaakaar naa waa kër Balla Gaye de lay dégg waa kër Tafatini itam ñu ngi lay dégg képp ku mu ital rek numéro baa ngi noonu ci écran bi nga woo ko mais Serigne Soy bu da wax ne combat boobu Tafatine bu teyee moom moom combat bi. walaay naa si bu teyee moom moom moom bi. وتيه ما مم كم بعده تمام كده ما قصده خد بيمو كينو على كل حد تقول ده نخ فاتي بروم ترد مم بس لو تقولي مديك نحن أنا توك ترد لامجي ترد نسي بري واي ترد تفاتي بروم ترد مم ده ده بوري كأني بوقو تمام متفاتي صدق خد بيمو ترد ماما بينيتون بروم ترد نس ترد بوقو تمام صدق خد بيمو بيمو مديك نبوق كينو على كل حد تقول ده دغلو كم سجوك البوم كواخي بوق الله جم قصده بيمو كينو بوق كينو على كل تقول ده ndax amagul na benn euh, ku sës si tafaatin wala mbokku tafaatin wala supporteru tafaatin bu la woo pour loolu. am na ku ma woon di gouverner man pour man doon si waxtaan man ma loolu moom bu ñu si déggantee soobee yàlla am na si loolu si bu la neexee man la may fay. Mm-hmm. man ngaa téye ba làmb ji jeex bu làmb ji jeex nga may doon di fay xam ko loolu ku wër boppam ma ko nangoo def xanaa. dëgg la de. wallaay naa si noonu laa ko waxee dama ne ba nga gis ba nga daan ba ngeen daan ba ngeen doog may fay. Mm-hmm. te sama bopp moo tax xam naa xam naa sama Mhm. te toogulu naa la may fi xam naa fa la dëgg la. waaw Moussa. macha allah muy la am solo Bawol Bawol yi ñu ngi lay dégg su fekkente ne ndam jaral na leen dinañ la woo. ndax wax dëgg fa yàlla ñëw leen ma def li may def bu ngeen amee dam ngeen doog a yëkkati sama addiya ngeen jox ma. loolu mhm. war na dal xel kon Serigne bu loolu yaakaar naa ne balaa ñaari fan balaa combat ba gars yi dinañ la woo ndax gars yi nag dañuy siifur Ngoy TV wax dëgg fa yàlla Serigne Soyibou lan nga bëggoon leeralaat leen luñ la laajul ci xam xana li ma la doon laaj naan ñi am ci dañoo nekk bitim réew di jaay ñu leen di ramas yooyu leen di ramas yooyu waaw waaw bu fekkee képp comme si da nga nekk bitim réew ñu lay ramas di la jàpp di la manque de respect mm-hmm. sa xel ba nga xam réew ma nga nekk président ba ko jiite mm-hmm. wallahi naa si ku mënta président ba réew ma kenn laa tëj allahu akbar mënta tëj président ba réew ma ndax mën laa tëj maanaam suñ sooy bu dafa ne mm. képp ku nekk bitim réew di jaay mooy marsa ambila yi ni ñu lay ramas Mhm. boo jokkoo ak moom président réew moomu buñ ko mënul jàpp ñoom duñ la mën a jàpp du loolu nga wax. dégg waaw loolu laa wax am na loo ma si liggéey si wuute la nga ko tuddee wuute rajo wuute. foo mhm. dem boo fa demee boo fa doon jaay ñëpp pour da ngay da ngay dem ba déplacé ba ñëw. waaw gaa yi doog di ñëw ñooñu doog di fa ñëw. Mhm. waaw. loolu am na solo. waaw ba si ñi ñi am si dañoo nekk personne sax teg ñu tëj leen sax képp comme si dañ laa tëj. li wër te wër am na si noonu si buñ si jokkoo yi maa yow. daal ku li xam ne ñu génn la nu mu gën a gaawee. dëgg la. waaw incha allah. incha allahu rabbi. Mhm. waaw baax macha allah suñu sooy bu yaakaar naa émission bi tey dañ ko gars yi xam nga yi nag dañ leen di wax comme ay cinq kii question pour ñu koy gën di jàpp. pour mhm. ñuy gën di topp émission bi ndax essai nii moom gars yi dañu yàkkamti sax suñu sooy bu génn. waaw danañ génn soobu yaay incha allah yëgatul dara danañ génn si média bi gën a waxtaan ak nit ñi ba nit ñi xam si jëmm ji xàmmee xam si dëkk ndax Touba sax lan dëkk mooy si la Touba waaw a waxtaan ak mm-hmm. gu mujj bi yaaram Moussa ñi ngi sant yàlla ndax wax dafa jafe kenn ku ne na koy dégg kenn ku ne na koy gise dëgg la waaye wax ji képp koom si yaa ngi si sikk sàkkal daal bu ma woo téléphone képp koom si gëm nga li ma la mm-hmm. woo xam ne léegi yàlla dama may ba léegi mi kaw suuf incha allah jërëjëf Moussa. jërëjëf Serigne Soyibou nekk ba diwaanu Touba ñu lay gërëm bu baax a baax ci xam-xam bu sel bi ak bu set bi nga xam ne yaa ngi ñu koy partagel saa su ne ci seen seen YouTube bu mag bi di Ngoy TV laa chaîne de peuple gërëm nañ ñëpp sant ñëpp salaamaaleykum wa rahmatullah oui pour yow mi nga xam ne da ngay toog di jaaxle doo am benn actualité ci Sénégal wala sax ci bitim réew Ngoy TV da ngay am lépp luy actualité Ngoy TV say information day leer nañ Ngoy TV daal c'est le pare nag yemul ci lool de lépp luy événement lu ci mel ni làmb wala cant ak lépp lu mënti doon Ngoy TV pare na pour gunge la wala da nekk mara bëgg ñëpp xam la xam sa xam-xam wowal gaaw Ngoy TV dëgg dëgg Ngoy TV le meilleur c'est donc abonné sur Ngoy TV ngir di actualité et information yu leer service commercial Ngoy TV 77 552 83 82 Voilà, 77 950 33 19 ou 33 868 86 22 Ngoy TV Dal, c'est le meilleur abonné di am say actualité ak information yu leer TV <laughs>